أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom ma ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ba tey comme nin ko baaxoo def noo ngi suratu nisa bi iznillahi tabaraka wa taala nuy jël tey ñeenti aaya aaya 167 168 169 170 ñeenti aaya yunu sunu boroom subhanahu wa taala di jàngal ñeenti mbir bi ci njëkk mooy charrul kufri ma kaana maa saddi an sabilillah wa zulmi mu ne wa haza kufrul yahud waliyazu billahi taala mbokk yi ay yi nekk sunu kanam liñ ci njëkk a jàng mooy musiba gi nekk ci weddi yàlla tabaraka wa taala charrul kufr mbokk yi weddi yàlla amul lenn lu ko gën a rëy ci bàkkaar te weddi moom mooy sakk jëf ki weddi yàlla yàlla daf ko defal ay xéewal yàlla dott ci moom ay waamey ngëneel yoo xam ne kenn mënu ko waññ moom waajooju mu daal di koy sëgg daan ne dara amu ci mi ngi mel ne rek ku nu defal taraanga nga gas ba mu xóot daal di koy suul toog ci daan ne man kenn defaluma dara waaw gan gu gane kër nga nëw nu dalal la tànqal la ndox nga sangu nga sangu ba pare ñu indi la lekk nga lekk ba suur ñu indi la ventilateur taalal la daan ne génn leen mu noppalu ñu daal lay bàyyi ci biir néeg wi nga nelaw affaire yi di la ëpp léeg-léeg ñu yee la ci benn kaas mun na weex mun na xonq léeg-léeg ñu tegal la ay palaat fruit ba ngay ñibbi nga ni waa kër gi yéen a gën a yées ci dëkk bi yéen ñu bon ngeen gan googu yaakaar naa bu la ganee deuxième fois am na beneen façon boo koy accueillir noonu nag la yenn doomu aadama yi mel seen digganteeg seen borom wala lu ko raw kon danañ jàng mbonu kéeféer rawatina nag mbon googu bu demee ba waa ji weddi yàlla ba pare nag léegi di baare yoonu yàlla yematu ci waaye mu boole ci tooñ nee na kufru gii nag kufru goo xam ne dafa ànd ak weddi yàlla ànd ak baare yoonu yàlla ba pare ànd ak tooñ ñett mu ne bii nag moom mooy kufrul yahud nee na yahud yi nag moom nii lañ mel yemuñ ci weddi yàlla dañoo weddi baare boole ci tooñ yal na yàlla musal ñaareel ci li ñuy jëlee ci aaya yi nekk sunu kanam mooy sunnatullahi taala yoonab yàlla tabaraka wa taala boo xam ne yoonal na ko fi ann al abd ida abada fi dalal wa tawaggala fi lchar walfasad ya'taziru alayhi tawba fa yamuutu ala zalika fa yuhlik leen yàlla musal yàlla dafa am doxalin dafa am aw yoonam wu mu tëral yoon woowu mooy jaam bi kii tuddee boppam man jaam laa jaamu yàlla su soree ci réer ba xuus ci walla géej tey réer bu doon géej la benn waay soobu ci géej gi nit ñi di ko seen muy dox ci biir géej googu mu dem ba kenn gisatul waa ji nee na ku mel noonu dafay jafe ci moom pour nit ñi tuubloo waat ko delloo ko ginnaaw lan la bëgg a wax mooy nit am na fu muy toll ci mbon nit am na fu muy toll ci réer pour nu indiwaat ko ci yoonu yàlla day jafe trop lenn nag ci sunu xeet wi ci réew mii falan toll dugg nañ ci mbon ci lëndëm bokkaaleeg réer goo xam ne pour ñu delloo si waat leen ah mbokk yi ab yonent sax bu ñëwoon day metti ci moom pour mu delloo si gaa yooyu ñooñu yàlla di wax sawaun alayhim a anzartahum am lan tunziruhum lu tax laa yuminuun lu tax laa yuminuun xatama allahu ala qulubihim wa ala samcihim wa ala absaarihim gisaawa wa lahum nee na yàlla di wax ne inna charra dawaabi inda allah mu ngoog ñi gën a yiis ci nit ñi mooy ñi nga xam ne dañoo tëx gumba lu muuma ci ki ci mbon su doomu aadama eggee foofu mbokk yi day jafe trop trop trop trop trop pour doomu aadama boobu ñu génnee ko ci réer mu ne nag rawatina bu réeree bare wata waxgala fi char mu dem nuur ci mbon wal fasaad ak yàqute mu ne yaxtasiru alayhi tawba tuub day jafe ci moom parce que yàlla kaste na xol bi noonu la yàlla di wax ne kallaa barraana ala qulubihim ma kaanu yaksibun ñii yàlla moo kaste seen xol yi li bon li moom moo la ñu def ba mënatuñu cee génn nee na ñu mel noonu fa yamuutu ala zalika fa yuhliku ñu ëpp ci ñoom dañuy dee ci lu mel nii ñu daal di alku mbokk yi ñetteel bi ñuy jëlee ci aaya yi mooy ar risala al muhammadiya amma li saairi nnas abyaduhum wa asfaruhum wa ahmaruhum wa wa wa aswaduhum mbokk jullit yi mission wu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam amma la ñi gën a réer ci àddina mooy ñu jàpp yonent bi ci arab yi la ko yàlla yónni wala ñu jàpp yonent bi yonent ba waa màkka la moom mooy ngay dégg fi boo nee màkk ñu ne waay waay lan mooy màkk waaw yéen màkk ay nit a fa nekk rek fii ay nit a fi nekk waaw déedéet yonent bi alayhi salaatu wasalaam message am al alamiya la lan la yàlla wax ci yónni gi mu yónni mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla moo ne ko wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaas am jeex na maa la yónni ci ñëpp yàllaa ko wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñëpp la ko yàlla yónni ñeenti xeetu nit ñoo am ci àdduna mu ne abyaduhum ñu weex ñi asfaruhum ñu zone ñi ahmaruhum ñu xonq ñi aswaduhum ñu ñuul ñi ñii ñëpp la yàlla yónni yonent yàlla muhammad kon yonent yàlla muhammad ci ñëpp la ko yàlla yónni ku toog fi nag di xaar ab yonent beneen bu ñëw ne la ma yow mii man la yàlla yónni ci man da ngay alko képp tamit ku toog fii di weddi yonent yàlla muhammad da ngay alko moom mooy yonent bu mujj amul yonent buy ñëw ginnaawam ñeneen ñi ngeen di dégg fii ci Sénégal ñuy woote naan ay yonent la ñëpp dañuy fen kenn du ci yonent laa la wax Sénégal amuñu yonent de te duñ ko am benn yonent la yàlla ñu yónni ci ñun muy Muhammad képp ku gëm ne waa Sénégal dañoo am yonent weddi nga alxuraan te ku weddi alxuraan safara nga jëm ndax alxuraan waxul li tàmbalee Fatiha banaasi yàlla waxul yónni naa yonent Sénégal wala gis ngeen benn saar bu ko wax am ngeen aaya amul ñeenteel li ñuy jàng tey ci sunu aaya yi mooy isbaatu sifatay ilmi wal xikma lillahi taala sunu borom subhanahu wa taala dafa am ay melokaan yoo xam daf koo melal boppam melokaan yooyu bokk na ci yi ñuy jàng tey mooy al ilm yàlla dafa melal boppam ne moom borom xam-xam la waaye wal xikma ak xereñ sunu borom jalla jalaaluhu mbokk yi ndax nit dana werante ne yàlla am na xam-xam ah ndax nit war na toog ci xelam di xalaat ndax yàlla moom am na xam-xam yàlla lépp lu mu def xam-xam la ko def rek xoolal sa bopp rek balaa ngay dem fenn wa fi anfusikum afala tubsirun sanuriikum ayatina fi l afaq wa fi anfusikum hatta yatabayyana lakumul haq daal nee na dinaa leen won ci horizon yi fi l afaq dinaa leen won ci horizon yi ngeen di seen dinaa leen ci won lu ne weng lu leer luy wone man yàlla maay dëgg mbokk yàlla lu mu def xam-xam la ko defee xool leen asamaan yéen ñi jàng astronomie ngeen jàng mbirum biddéew yi loolu ndax ko amul xam-xam mun na ko def ngeen jàng asamaan jàng ni muy towee ngeen jàng asamaan yi juróom-ñaar ngeen ñëw jàng suuf si juróom-ñaar ngeen ñëw jàng jaww ji climat bi ngeen jàng géej gi ngeen jàng xoolal ga même garab yi ngeen jàng rabu àll yi ku def loolu lépp kooku am na xam-xam wala ama xam-xam ay portable yi mujjee wàcc nii da ngay gis gaa yi jékki-jékki li gën a li gën a tax doomu aadama yi duñ dem mooy da ngay gis koo xam ne dafa jënd benn tableau tableau bi dañ koo dessiner def ci univers bi ay fleur asamaan bi ak ndox mi wala suuf si di mel ne lu laalante ñu def tableau bi benn tableau bu rafet boo xam ne ku taxaw rek nga gis kii ñëw fay un million kii fay deux millions kii fay trois millions nga gis tableau bi ñu koy njëkkanti te waa ji bi mu taxawee di xool àddina bi di dessiner tableau bi fii la xool ci àddina bi mu ngi nii mu ngi nii taxaw yaa ngi nii di ko gis nga xool tableau bi nga jommi te bi nga xoolee mbir mi nii en direct mi ngi nii sa kanam jommi wuloo wala waa jaa ngi nii taxaw sa kanam jommi woo ci moom mu foto wu ñëw eh tuut tuut tuut tuut tuut tuut même gis nga jigéen ñi da ngay gis koo xam ne xale bu jigéen la gis photo bi rek non kii du nit non booy yow foo xamee kii mais mais booy garaaw nga de waaw yow nga xool photo kooku mu ngi nii taxaw joomi woo nga moom mu ngi nii jëmm ji joomi woo nga xool photo bi bugg joomi loolu mooy lan loolu moo dal doomu aadama yi mooy yàlla bu leen wonee du ñu gis mais buñ gisee seen morom yàlla lépp lu mu def ci xam-xam la ko def amul lu nit di xool lu sunu borom subhanahu wa taala defar lu dul doomu aadama boobu bu ci bu ko xoolee dina xam ne yàlla mooy dëgg moo tax yàlla dafa bokk ci melokaanam am xam-xam waaye dafa bokk ci melokaanam xereñ lan mooy xereñ mooy lu mu def noonu la d'accord ngeen kan mooy xool asamaan mu nekk ci kaw mu ne asamaan warul nekk ci kaw mu xool suuf ni mu mel mu ne non suuf daal dëgg suuf si warul woon nekk ci kaw mu xool géej gi ni mel mu ne géej warul woon nekk fii loolu lépp dafa sori demal nga sangu ba set nga taxaw ci sa kanamu seetu nga xool sa bopp lan ngay critiquer ci loo xam ne warul woon nekk fi mu nekk tàmbali ci sa kawar gi moom moo féete kawam nga ni kawar gi warul woon nekk fii quoi man sama nopp yi wax dëgg yàlla yàlla fi mu ko def warul woon nekk fii nga ñëw ci bët yi ndax fi ñu nekk foofu la wala nga wàcc nga jël benn par benn léegi nag boo waxee warul woon nekk fi ba pare nga wax fan la la ko yàlla waroon defal ñu seet ndax bu nekkoon foofu di nga rafet di nga mel nii nga mel mbokk yi yéen ñi toog fii kan ci yéen mooy xool boppam mu ne man sama bët yi daal du yàlla waroon nekk war nekk ci ginnaaw kon dina doy waar de kon nooy doxee wala nga ni sama gémmiñ nga war nekk sama doq bi kon boo tibbee nooy def di nga am problème de ah wala bakkan bi mu nekkoon ci ginnaaw ngay ñandu dina yéeme de wala nga ni loxo yi waruloon nekk fii léegi bu ñu ko dindee loxo yi fi fu ñu koy def ah kon day doy waar ba tey tànk yi nga ni war tànk yi da war a nekk sa bopp bi wala nga ni cey suma amoon ñaari béjjén doo dem kon foo génn ñu ne dëmm baa ngoog ñëpp daw waaye gis nga yàlla subhanahu wa taala ndeysaan moom lu mu def rek loolu mooy xereñ lu mu def rek dañ naan noonu la kenn mënu ko changer moo tax mu ne alaa yaalamu man xalaq wa huwa latif alxabir allahu akbar kon mbokk yi sunu dars tey bismillahi tabaraka wa taala ci daaira bi lay wër mooy ñeenti aaya yi lii la ñuy jàngal ñeenti mbir yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله قد دلوا دلالا بعيدا إن الذين كفروا وزلموا لم يكن الله ليغفر لهم ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله أليما حكيما sunu borom ne inna alladina gaañ a nga xam ne kafaru danoo weddi yàlla kin doon jàngal day wax inna allasina joo gis kafaroo topp ci seeni borom alkudanu wana dëgg de inna lazina boo gis kafaru tegu ci ñooñu perte nañ alku nañ waaye inna lazina boo gis amanu tegu ci ñooñu texe nañ ñooñu yàlla gërëm na leen aljanna lañ jëm inna lazina ismu mawsul la yàlla mu ne gaañi nga xam ne kafaru dañoo weddi ay jaahadu dañoo sakk jëf weddi yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam weddi sunu boroom weddi lislaam yamuñ ci waaye wasaddu ñu baare taxaw temm an sabilillahi ci yoonu yàlla bi ne yàlla yoonam bi du fi du fi du fi leere du dem kenn du ci dugg sarafu naas ñu wëlbati nit ñi indi leen beneen programme bu wuuteeg programme yàlla loolu mooy asadd an sabilillah sadd an sabilillah yenn saa yi ñu ne dafa am ñoo xam ne dañuy baare yoonu yàlla dof bu mel ne man bu déggee ñu ne dañuy baaree du yoonu yàlla mu yaakaar ne ay nit ñoo taxaw ni nii seen loxo kan fi kenn fi jaar ah loolu ngay ñu bëri na lañ foog déedéet du loolu mooy as sadd an sabilillah sadd an sabilillah mooy lan yàlla dafa indi diineem diine bi yàlla indi di lislaam yow nga ñëw ba ci wetu diine ji indi fa beneen diine beneen tëralin islaam aw tëralin la aw doxalin la al islam qawaidu alsharciya allati jaanaha arrasul sal allahu alayhi wa sallam min indillah qawaid alsharciya ay keno la ay ponk yu ñu yonent muhammad alayhi salatu wasalaam indil fan la ko jëlee ci yàlla keno yooyu nga ñëw di xëtt keno yi waaw ne nit ñi waaw garaawul de mën ngeen nekk ci diine ji mais jarul sonno ay julli yi waay yooyu wo julli de moom ah mu taxuta dugg àjjana ñu ne ah bon waaw moom sax moom day ñu daanaka mën nga koo bañ a def ah ñu ne koor nag nga ne ah loolu de xiifal sa bopp la man de du ma xaru xiif yàlla tere ñu ne màkk nag màkk da jarta dem ah alxuraan ay alxuraan de moom ràkkal la am na moom daanaka moom waaw kon léegi lan mooy dëgg kon léegi ana diine su fekkee lii lépp amatul benn valeur te yàlla yónni woon yonente bi yonente bi ñëw nekk ci ñaata at ñaar fukki at ak ñett xeex ci ñu tuur ci deretam génne ko fi mu dëkk rey ci ay saxaabaam fase ci ay doomam waaw ñun ñu ñëw lii ñàkkal ko fayda mooy li am nii tey ñu bari dañ yaakaar ne asadd an sabila baare yoonu yàlla mooy nga taalal say loxo ne yoonu yàlla bi kenn du ci dugg déedéet déedéet déedéet baare yoonu yàlla mooy li ngeen gis Sénégal ay mbooloo yoo xam ne dafay détruire julli ñi duñu xam islaam gëmloo leen ay fecc fecc guddi ba bët ba bët set nga gis ku leen ne man de fay dem bu jàng yi ma fanaan dañoo fecc bay bëgg a dee diine yàlla amul fecc diine lañu du amul fecc amul amul amul dara amul caaxaan nga xoolal li am nii loolu mooy baare yoonu yàlla fexe ba yoonu yàlla bi nit ñi duñ ci jëm kenn ci ñun ñu julli dootu ko yitteel boo julliwul sax doo yëg ne yaa ngi ci danger bal da ngay féex nekk sa olala boo jaamul yàlla amul benn gêne boo yëg te loolu ay nit ñoo ko def dëtturul nit ñi génne leen ci diine wan leen leneen wan leen beneen njub bu wuuteeg njubu yonent yàlla muhammad barki dem xisasul anbiya wax naa leen ne képp ku gis ne mën ngaa génn ci sharia yonent yàlla muhammad comme xudar ni mu génne ci sari Moussa anta kaafir yow yëfër nga li ma leen di wax mooy mu ngi ci nawaqidul islam ngeen demee ci nawaqidul islam di ngeen fa fekk ñu ne képp koo xam ne da ngaa gëm ne mën ngaa génn ci sharia muhammad comme xudar ni mu génne woon ci sharia Moussa yow yëfër nga nga gis ne sharia muhammad bi man mën naa cee def lu ma neex yow yéeféer nga kon nañ bàyyi xel ne baare yoonu yàlla du comme ni ngeen koy déggee benn nit bu taxaw daan ne fii kenn du fi jaar déedéet du loolu mooy nga fexe nit ñi duñ jaar ci li yàlla bëgg nit ñi duñu dund sunna yonent yàlla muhammad loolu mooy asad an sabilillah mooy sarfu naas gis nga mooy soppi nit ñi anil imaani bihi sallallahu alayhi wa sallam ba nit ñi duñu mën a gëm yonent bi bima yabzuruna min buzuri shakk wal kufr di indi ay sikki sàkk ay déngi déngi ay kufr yoo xam ne ma anzal allahu biha kenn xamul lii lu mu loolu moom mooy asadd an sabilillah baare yoonu yàlla yàlla mu ne ñi ma weddi baare sama yoon ñii dëgg-dëgg qad dallu sànku nañ réer nañ dalaalan réer goo xam ne baidan dafa sori dëgg qad dallu bu yàlla yemoon fii doy na waaye mu ne dalalan mu nekk tawkid ba pare mu ne baidan xam nga nit dina réer yenn saa yi réer su ma doon dem Dakar ma réer ma dem ba booru poste Thiaroye réer naa de ah mais ça facilement ay gàtt ma trouvé waat ma dem ñibbi wala mais su ma doon dem Dakar ma réer dem ginnaaw Tambacounda xam nga sànku ji naa léegi nag bu ma doon réer ma dem Dakar ma dem ginnaaw géej kan laa fay fekk ku ma woon ku ma ne yow eh il faut nga jëlaat gaal jéggiwaat géej gi boo demee ba ji fal ngay gisee koo waxal loolu mooy dalalan baidan terminé safara rek nga jëm dootoo dëpp su nit eggee ko fu mu jëm nga réer réer goo xam ne kenn mënulatu laa orienté ndeysaan màkk ngay réer ngay dox dox di laaj màkk koo laaj du la wax xaw ma de daan la ruux ala tuul continuer rek li nga koy wax déggu la sëñ bi dama réer mu ne la ruux ala tuul nii rek kan ma fa dégg wala koy wax wala dégg waay jëw da nga xam foofu kenn xul lu mu lay wax koo wax nag dina lay wax nii rek da ngay dox ba sës ci montagne yi gis xeer yi gis asamaan bi di wàcc nga ni ah xaaral ma tourné waat noonu rek ngay nekkee nag bu la yàlla dimbaliwul nga muus am xel nga fekk sax ñenn ñi nga laaj leen wala nga wone sa badge ah wala nga dem ci police yi yu demee noonu da ngay dox ba ne fan dang wadd ñëw bu l'hôpital loolu mooy am foofu léegi nag fekkee ne foofu rek ngay réer alku waxuma laak fii ci àddina bi sax kon réer dafa bon réer baaxul te xam ngeen ne réer lu koy waral ñetti raa la fam réer mu jur rëy mu jur réew foo gis ku réer dafa rëy dafa réew ngay nekk ci sàppe ci jàkka ji nga gis benn kilifa buy dënd buy dëngal saatu bi nga ne ko papa doo kii mu ne la fas kanamam wala mu ne nii mbax na bi wala ci pata ci jàkk reewande ko waral ba pare rëy nga avancé pour ñu yeen toll la saafe wala nga ñëw puus sa tànk mu ne la sa tànk bu ma laal de da nga li ma la wax parce que dégg nga ma xama di trop commencé gis nga di commencé ñax ci jàkk yooyu yëpp mu wax da ngeen koy gis ci jàkk yi dañ saa gis koo xam ne moom du yem ci loolu day jël micro ñu wax loo xam ne moo tax xam nga ndox ma dafa réer bi mu réeree mu rëy lan la ko jural mooy réew nekk ci néegu yàlla di saaga am na benn xale boo xam ne léegi nekkatul xale bi mu nekkee xale mu nii la toll maa doon ànd ak moom jàkk mooy Pape Cheikh Silla bi ngeen di dégg journaliste mës nañu ànd suñu jàkk ñuy julli mu nekk ci benn ginnaaw paa paa bi mu nekk ci kanamam na bi muy sujjóot xam naa dafa écarté mu ëpp mu mbëkk paa bi ci ginnaaw xam nga nit bu ngeen di julli ngay sujjóot muy wàcc sa bopp lan lay laal ginnaawam xam ngeen fi ma bëgg a wax ñu pare paa bi ni sama taat la laal ñu yuuxu ci jàkk bi kii dama koy di waay kenn ñëpp non ñëpp am problème xam ngeen xale bi laalu ko mais boppam mi xoolal moom ni mu ko dafa tudd tër bi waay to to to xam nga lan moo garaaw affaire bi timis la woon ñu ñëwaat jéem moo amaat jéem moo da yàlla moo mën a nattuwaate te moom xoolal mu ngi daw mu ngi daw mbaa du man moom laa taxawaat ndekke moom la encore oh suñ borom moo doy waaw ay gée boobu non non moo tax mbir mi am na changement léegi de lay affaire bi léegi neex na yan lañu yàlla saxal ci njub lu mel noonu nag li ko waral mooy nit dafa réer réer ba yàqu te réer lu ko waral mooy ñàkk jàng ñàkk déglu dëggu yàlla bi am na ñoo xam ne boo leen ne yàlla ne na yonent rek ah waaye yéen lu bon lañ ci teg loolu yàlla nañ ci yàlla musal mbokk yi kon gis ngeen ay yàlla di wax ñun ñi la yàlla di waxal inna lazina gaa ñi nga xam ne kafaru dañoo weddi wa saddu ñu baare an sabilillahi yoonu yàlla yàlla mu ne ñooñu qad dallu sànku nañ allahu akbar dalalan cànku goo xam ne réer goo xam ne baidan wallahi sori na te kenn mënutul fexe indi leen borom bi ne inna lazina gaañ nga xam ne ba tey kafaru dañoo weddi yemuñ ci wa zalamu ñu tooñ jahadu nubuwatu muhammad weddi nañu nekkug yonent yonent yàlla muhammad wa zalamu bi baqaihim ala juhudihim ñu tooñ ci sax gi ñu sax ci weddi googu di tooñ julliti yàlla yi baghyan minhum ndax mbon bew wa xasadan ak iñaan yemuñ ci rek ci weddi yàlla weddi muhammad waaye di tooñ jullit yi waaw di leen tuddee ay tur yu kenn xamul di leen dëkkal fu nu dëkkul di yàq taaru lislaam di tooñ tooñ goo xam ne dalay leer ne dëgg dëgg dëgg ñi ay tooñkat lañ lu tax parce que di néewal islaam doole ndax iñaan goo xam ne dañ ko iñaane jullit ñi xam ne jullit yee nekk ci dëgg iñaane jullit ñi ndax yàlla wàcceel na leen yonent muy ngën gi yonent yàlla jagleel leen ko jagleel leen ngën gi téere jagleen leen ay ngëneel yu dul jeex yàlla musal leen ci ay lëndëm yàlla indil leen leer bu ne weñ boole leen ak alquran iñaan googu lañ iñaane julli ni yàlla mu ne ñu mel nii lam yakunillaa yàlla nekkul li yaxfira lahum di leen baal yàlla du leen baal mokk mokk mokk dégg ngeen de lam yakunillah yàlla nekkul li yaxfira lahum di ku leen di baal wala li yahdiyahum yàlla du nekk mukk ku leen di jubal tariqan yoon kan mooy wax yàlla wax ji dafa ndaw ku weddi yàlla yemoo ci loolu ngay tooñ jullit yi yàlla mun a yow duma la baal mukk mukk mukk mukk lam yakunillah li yaxfira lahum yàlla du nekk ku leen di baal ñu ne ah mu ne wala li yahdiyahum tariq yàlla du nekk ku leen di jubal yoon du leen jubal benn yoon ñu ne ah mu ne illa tariqa jahannam lu dul yoonu jahannam rek laa leen di jubal lii rek musiba la waaye yamu ci de mu ne te jahannama boobu bu ma leen fa dugalee xaalidiina fiha abadan dama leen fay saxal ba faw lii jar naa xalaat ñii nii lan lañ def ba yàlla ne duma leen baal duma leen jubal lu dul benn yoon rek laa leen di jubal yoon ba buñ ci jaaree fu ñuy teere ji mooy jahannama te suñu xasee dugg jahannama fa la ñuy sax éternellement lu waral loolu ñii luñ def ñaari bàkkaar kese lañ def ñaari bàkkaar lan ak lan la weddi ak tooñ weddi yàlla ak tooñ ko kon lii jullit war na cee xalaat lépp loo xamante ne day teeral ab jullit safara jullit bi war naa daw loolu ñii lan lañ def ba yàlla ne duma leen jubal duma leen baal ah lan lam yakunillaa li yaxfira lahum yàlla du nekk koo xam ne da leen di baal parce que deltuwuñu ginnaaw dañoo féttéerlu ci weddi googu ñu weddi yàlla dañ cay féttéerlu ba pare continuer ci nuur ci ne duñ deltu ginnaaw yàlla ne comme noonu la jeex na man du ma nekk koo xam ne dama leen di baal waaye du ma nekk koo xam ne dama leen di orienté di leen jubal sax pour ñu jéem a tourner tuub abadan benn yoon dong laa leen di jubal mooy yoonu jahannama illa tariqa jahannam mbokk yi dugg jahannama rek musiba la wala dugg jahannama même bu doon benn seconde lan la dugal jahannama génne la musiba la waxuma nag yàlla mu ne xaalidiina fiha abadan abadan kañ la yem ah abadan lu muy teg ci wolof ah faw lu muy teg ci tubaab ah loolu lan la ñaata at la xam nga buñ leen woon fukki fan mu naan leen ndeysaan nga toog di muñ comme weeru koor rek gars yi am nañ fe de allahu akbar am nañ fe xam nga yaa ngi yaakaar yaa ngi jóge benn am nga vingt di jékki-jékki ne gars yi am nañ vingt cinq macha allah alhamdulilah lee mu dem gars yi dañuy compter koor dañuy compter da gis ku yor ku yor big ah waaw da gis ku yor big tey jii la ñu war benn mu ndog rek subhanallah ndax yàkkamti laa ilaha illa allah waay waay xoolal tiyaaba yooyu nit ñi di ko compter pour mu jeex xam nga gars yi dox ñuy compter du pour pour mu gaaw a jeex kese la de pour dañoo sonn loolu la mais du pour jaamu yàlla de pour na jeex yenn saa yi sax nga dégg ay booy ñaata lañ am fekk am nañ vingt nga ne est-ce que amuñu dix-huit non yow booy ku soxor nga yow da nga soxor yow bon nga ñaata lañ am yow nit ñi am vingt nga naan dix-huit boo yow xam ngay wooroo soo wooroon doo wax li ngay wax fekk woor nga di dafa juum rek wala fekk mën na ko bañ a compter est-ce que dafa indi kooku bon la moo tax ñun xamuñu jaamu yàlla billaahi alladi laa ilaaha illaa hu mais xoolal jàngal salafu saali ci jaamu yàlla jàng leen ci koor wala nga jàng leen ci naafila guddi wala nga jàng leen ci saraxe wala nga jàng leen ci da ngay xam ne ñoom duñ leen dabba yowmal xiyaamati billaahi wallaahi taala ndax ñoom buñ ko doon def dañ koy def ngir jaamu yàlla ñoom defuñu ko pour mu jeex pour mu jeex déedéet ñoom dañ ko def ngir jaamu ba suñu julli yi waaw dañuy def pour mu jeex waaw dañ ko dóor mu daanu moo tax duñ ci am tiyaaba parce que duñ ci am xalaawa duñ ci am bànneex suñu borom ne ñii weddi ma di tooñ yàlla ne duma leen baal te duma leen jubal benn yoon lu dul yoonu safara jahannam borom bi nee na te buñ fa duggee dañ fay sax dàkk mu ne wa kaana zalika ala allahi yasir te loolu lu yomb yàlla la ko yomb hmm. nekkul ci moom lu jafe lu ko yomb la loo xam ne ñii bu leen di dugal safara amul kenn kuy intervenir naan ko ah waaw eh, Sénégal ngay dégg loolu Sénégal ngay dégg ñu ne waaw fii gis nga bu fi yàlla buggee dugal nit ñi safara ñoom diw ñooy ñëw lijjanti affaire bi oui ah bon kon Sénégal am nañ ñoo xam ne ëllëg dañuy sol ay robb taxaw ci kanamu yàlla wala ñu poñe yàlla ne ko ñii duñ dem da ngay dégg fi ñu koy wax ci ay kaset man dégg naa benn kaset boo xam ne dañu ne Abdul Xaadir Jeylaani taalibeem dafa dee mu ñëw gis taalibe bi tëdd mu ne xaar leen ma ñëw gaa ñi ne nañ dafa naaw koji ji malakal mooti sëccëm asamaan ñëw rek dóor ko sone tëf malakal mooti bët bi daal di toj tuuru nee na pañe bu mu yoroon def ci ruu yi pañe bi daal di wadd ruu yëpp daal di dellu ñëw branché ci seen ñi deewoon bis boobu ñëpp dekki mu ne mu daal di tourné mu ñëw fekk taalibe bi dekk mu ne waaye jaw malakal mooti di rey sama taalibe te tàgguma moom toj naa bët bi loolu yaakaar ngeen ne mbokk yi loolu diine la kan moo ñëwee toj bëtu malakal mooti la ilaha illallah kan moo ñeme toj bëtu malakal mawti loolu loolu loolu du waxu jullit keneen ki ne nañ taalibe bi dafa dee ñu teg ko ci kanamu jàkk ji di ko bëgg a jullee ñu naa dañ xaar kilifa gi ñëw mu ñëw gaa yi xaaj sàppe yi mu dem taxaw ci kanam mu jàkkaarloo mbooloo mi mu ne lan ngeen bëgg ma defal leen ko ban àjjana ngeen bëgg ma yóbbu ko ban àjjana ngeen bëgg ma yóbbu ko ban wax leen rakk waa ji daal di ñëw ba ci moom ne ko kii kenn la woon ci famille bi moo doon dundal ñëpp moo yoroon kër gi moo doon dundal famille bi ku feebar moo lay faj ku bëgg a tukki moom la ku lekk moom la ku naan moom la yépp moom la ñun kay bu fekkee ne mën nga ci dara soxlawuñu àjjana dañoo bëgg rek nga dekkil ko soxla wuñu ay àjjana wax dëgg yàlla bu génn mën nga ko mën nga ci dara yàlla na dekki dem ñibbi kër ga ñu ñibbi ànd ak moom loolu lañ bëgg ah boobu moo gën a yomb di ay àjjana fële la foofu deuxième la ñun fii lañ bëgg won ñu léegi waaw loolu alxuraan naan fa buhita lazi kafara moo tax dañuy wax lu leen neex rek ay àjjana laa koy yóbbu am na keneen koo xam ne nañ dañu dugal nit ki dugal taalibe bi ci biir mu teg nopp bi ah ah déedéet firdaws waaw waaw firdaws firdaws xawal waaw ah démb teg nañ ko démb teg nga ko télé ah alhamdulilah kon dégg ngeen yeneen démb seetaan na ko télé bopp mu ngoog teg nopp bi ah ah déedéet déedéet fir ah waaw Firdaws waaw yóbbu leen mu ko Firdaws dafa mel ne mbir yi fii moom seen loxo yi la nekk quoi affaire théâtre yooyu théâtre xam ngeen théâtre moo am Sénégal théâtre man nag yërëm ma ñëw ñu de ma am nga ñeen laa yërëm ñu leen topp ñu leen di nax ba keroog yow mal xiyaam loolu yàlla naan wa barazu lillahi wahidul qahar allahu akbar ne tël jàkkaarloo gi la yàlla waxoon mooy dëgg tey istabarra alladina tubi'u min alladina taba'u wara'u alazab wa taqatta'at bihim alasbab wa qala alladina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'u minhum kama tabarra'u minna yàlla mu ne kazalika yurihim allahu kazalika yurihim allah kazalika yurihim allah gaa yi de leen muraajaa bu leen mel ni man ndeysaan allahu akbar yenn saa yàlla daf ñu indi njëkki rek yàlla indi ñu benn écran ci écran wu yowmal xiyaame yi taf projecteur en direct gaa yi di xool gis nga nit ñi bu ñu toppoon alxuraan kenn du alku waaye sunu ñàkk a jàng alxuraan moo tax ñu alku suñu ñàkk dégg alxuraan moo tax ñu sànq moo tax ñu nax ñu ku ñu nax rek koo gis fii ñu nax jàngul alxuraan xamu ci dara beneen bi mooy koo gis ñu nax ko sax dégluwul alxuraan soo ko dégloo sax kenn du la nax kenn du la nax waaw ndax di nga xam waa ji lu mu mën ak lu mu mënut waaw keroog benn waay dafa indi ci Facebook bi waa ji dafa am mbaam bu feebar mu jël ko yóbbu ko fi ñuy defaree oto yi mook doomam ñu ñëw ne ana technicien bi mu génn ak ay gants ak iwilam ña ko lan la mu ne sama mbaam mi tànk bi day miiti ñu ne ko yow xanaa da nga feebar mu ne eh n'est-ce pas du yéen ay ay technicien ngeen da ngeen defar oto mu ne waaw mu ne waaw kuy defar tànk oto mu ngi defar tànku mbaam nit ñi ci mbedd yi di dox ñooy ñëw di lijjanti waa ji ak technicien bi ba mujj gi mbooloo mi fees del ku ñëw ne waa lan la ñu ne kii nee na la mécanicien bi fañ mbaam bi maanaam loolu lan la bëgg a jàngale ku nekk dafa am loo mën soo bàyyee li ñuy mën nga dem feneen da ngay am problème faaqidu shay laa yutii ku xamul diine jàngul alxuraan mënu laa woon lislaam bu leer parce que jàngul alxuraan suñu borom nee na wa kaana zalik ala allah yasir ñii tàbb leen jël leen tàbbal leen safara saxal leen ba duñ dëkk lu ma yomb man yàlla la ndax maay borom kàttan maa moom lépp lépp sama loxo la nekk man yàlla maa koy def suñ borom ne yaa ayuhan naas eyeen nit ñi ñépp dugg nañ ku weex ak ku ñuul ku xonq ak ku zone jullit ak yéeféer waaw yaa ayuhan naas eyeen fàttekat yi fal insaan mahalu nisyan fa inna awalu nnaas awalu nnaas wa laqad ahidna ila adama min qablu fa nasiya baatu naas lu muy teg ah mooy fàttekat yàlla mu ne ee yéen fàttekat yi waaw dañoo fàtte dafa am contrat bu ñu siyante woon ak yàlla ca alamul arwaax yàlla mu ne alastu bi rabbikum ndax duma seen borom ñu ne ah kay ñun ñëpp ñu wàcc suuf ku nekk daan ne weddi li nga waxoon yàlla yàlla biñ nekkee alamul arwaax balaa ñuy ñëw ci kaw suuf ñun ñëpp dañoo nangu woon ne yàlla mooy yàlla mooy sunu borom bi ñu ñëwee àdduna àdduna neex ñu fàtte ne am na lu ñu waxoon ak yàlla ñun ñëpp ñu topp àdduna yàlla woonu ne eh yéen fàttekat yi qad jaakum dikkee na leen ñëw na ci yéen. ar rasulu yonent yàlla muhammad lu tax ñu ne yonent yàlla muhammad la ñu jàng arab alif ak lam bi lan la taarif la maarifa la du nakira qad jaakum ñëw na ci yéen ar rasulu yonent bi muy muhammad alkaamil fi risalatihi alsadiq fi daawatihi yonent boobu nga xam ne message am bi ko yàlla yónni dafa mat sëkk woote bi ko yàlla yónni na woote daf cee dëggu yonent boobu moo ñëw ci yéen bil xaq indi leen dëgg allahu akbar dëgg googu fan la ko jële min rabbikum mu ngi bàyyeekoo ci seen boroom qad jaakum ñëw na ci yéen ar rasulu yonent bi bil xaq ci dëgg dëgg goo xam ne fu mu bàyyee ko min rabbikum kon yéen lu ci seen warugar fa aminu bihi gëm leen ko xayran lakum mu nekk yiw pour yéen mu nekk jàmm pour yéen ah leer na de ah baat bi bi ko yàlla di wax ñan la yàlla wax yaa ayyuhal lazina amanu yaa ayyuhan naas la wax kon bàyyil kenn ñëpp la yàlla wax ne gëm leen yonent bi ndax lim leen indil dëgg la mu ngi ko jële ci yàlla gëm leen ko mu nekk jàmm pour yéen kon buñ ko gëmul weddi dëgg gi mu indi lan la ñuy jural muy musiba fa aminu bihi gëm leen yonent bi fa aminu gëm leen mu nekk xayran lakum yiw pour yéen mu nekk jàmm ngeen am jàmm ci kaw suuf am jàmm ëllëg yowmal xiyaama ngeen nekk ci teraanga àdduna àllaaxira ngeen am yërmande yàlla waaye wa in takfuru bu ngeen reppee ba weddi ci su ngeen weddee na ngeen yëg ne fa inna lillahi ñeel na yàlla maa fi samawaati li ci asamaan yi wal ard ak suuf kon yàlla doyewu leen dara léeg-léeg nga dégg Sénégal baatu kufru boo xam ne li fi nekk bu ko yàlla xeebee du ngeen koy dégg man de xeex naa ci li fi nekk bu ko yàlla xeebee ñàkk du ngeen dégg loolu ñu ne li nekk fii Sénégal ci diine bu ko yàlla xeebee day perte day ñàkk yàlla sunu moroom la ah ba yàlla di xeeb bay ñàkk soo waxee ñu ne loolu benn sëriñ moo ko wax nekk nañ ci benn dëj waa ji fii lay toog par exemple xam naa ñëwul tey papam génn àdduna ñu def bayaan bayaan bu am importance benn waay ñëw ne day yàq bayaan bi li ñu waxoon yëpp mu koy dajj yor pusoom di ko teppi ba ci yàgg rek mu def mu mu mu def erreur mu xool ma rek ne ma kon maa doon def bayaan bi te man lay weddi mu ne ma gis nga li fi nekk bu ko yàlla xeebee ñàkk ma ne ko wax nga musiba de te yàlla du sa morom loolu waxu kéeféer la mu ne ma diw moo ko wax ma ne ko waxu yéeféer la wax dëj ba tas dëj bi jaxasoo waaw loolu waxu yéeféer la waxu yéeféer dañ koy bàyyi ñu koy wax yàlla wala qad qaalu kalimatal kufr yàlla mu ne bu ngeen ma weddee gis nga xoolal bu ngeen gëmee yonant mu nekk jàmm pour yéen waaye wa in takfuru su ngeen weddee fa inna lillahi ñeel na yàlla maa fi samawaati lis asamaan moo ko moom wa maa fil ard li ci suuf moo ko moom kon yéen nit ñi kese bu ngeen ko weddee lan la fay wàññi yàlla bi mu ne dem leen aji lan la wax wa lillahi ala nnaas xajjul bayt man istataa wa man kafara fa inna allaha ganiyun anil alamin dem leen aji su ngeen lànkee bañ a dem ñi ngeen xam ne yàlla moom moom àdduna yéen bu ngeen ko weddee du ko wàññi dara allahu akbar xanaa gisu leen yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi l ard allahu akbar mi ngi sàbbaal yàlla li nekk ci asamaan ak suuf wa in min shay illa yusabbihu walakin la tafqahuna dangay romb garab gi muy naaw nga ne ey waaye xala garab gi naawul de day sàbbaal yàlla nga romb xaj muy na nga ne xoola xaj bi day mboobu mboowul day sàbbaal yàlla nga romb dex gi muy def vr bum nga ne vague yi day sàbbaal yàlla wa in min shay la yàlla wax amul lenn lu dul mi ngi sàbbaal yàlla kon yow boo lànkee ba ñu julli fajar lu muy wàññi yàlla gars yi dañ naan boo meree màttal say nopp dangaa mer ñu ne waaw ñu ne màttal say nopp acca kan moo mën a mer ba màtt noppam acca bismillah du dem kon soo meree yàlla nga ne du ma julli màttal say nopp ñeneen ñu ne màttal sa bakkan boo meree ne boo meree yàlla màttal sa bakkan mën nga ko ay waa kon soo meree yàlla nga ne man du ma julli lan lay wàññi yàlla yàlla nee na walillahi ñeel na ko moom moom moom maa fi samawaati li ci asamaan yi asamaan yi li fa nekk xam ngeen ko ah wa maa fi laar li ci suuf si xam nañ ko ñun fii géej waaye gi ñu dëkk rek xamuñu li fi nekk lépp waxuma laa nag suuf sépp wala Sénégal gi nu nekk rek am na lu ñu fi xamul mu ne wa kaana allahu aliman na ngeen yëg ne yàlla musta deñ di aji xam-xam di aji xam aliman mooy aji xam ji te doomu aadama wallahi tuuti la ko yàlla may ci xam-xam tuuti tuuti la yàlla may nit ci xam-xam tuuti wa ma utitu min al ilmi illa qalil wallahu yaalamu wa antum la taalamuun yàlla rek moo xam subhanahu wa taala waaye hakim xam-xam ngoo xam ne dafa ànd ak xereñ yéen doomu aadama jaaxalu leen doomu aadama ni muy juddoo nekk liir ci biiru yaayam suñ la tegalee film bi appareil bi ñu tegal la nit nu muy formé woo waxuma dara sax mais mani yu bi ni muy dawee ni nit ñi di wëre kaaba gi nii di jaar droite di romb xajaratal aswad ah di def nii ruknul yamaan yi di wër xajiri ismail di def nii noonu la mani yuy di wëree ci biir doomu aadama gis nga turu boobu mel na xajaratul aswad su mani bi wëree ba ni fa dagaj doom ñëw na doom ñëw na te mani boobu benn bu duggee rek yi doon wër yëpp arrêté nañ benn boobu bu duggee yëpp arrêté nañ kan moo leen nañ wër lu ñuy wër kan moo ko wërloo su benn duggee kan mooy wax yeneen yi taxaw leen benn boobu lan moo ko def nit lan moo ko sàmm ci biir bi ba mu mel noonu mu mel bi juddu jotee kan moo ko génnee bi nga taxawee nii cunnum nekk ab paa sax ci kim kan la ci doomu aadama rek la nekk de damuñu feneen nag kon mbirum yàlla su ne ne yàlla mooy borom xam-xam bi alim hakim loolu bul ci werante bul ci dengi-dengi mbokk yi lii mooy darsa tey ñoo ngi naan yàlla jalla jalaaluhu mu jéggal ñu njuum tey nangul ñu li ci jub asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu